asalaamaaleykum chers internautes Allo Dakar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dalal leen seen émission li ci xel yi te dañuy wàcc sur le terrain laaj liggéey bi nga xamante ni muy affaire sociale ak ministre de la femme bi nga xamante ni moo koy gérer di Ndeye Saly Diouf Dieng est-ce que matal na liggéeyam est-ce que sénégalais yi maanaam jigéen ñi yëg nañ seen bopp ci li muy liggéey bu ngeen ci bëggee xam tuuti ay ca la ñuy wàcc laaj quelque si ay jigéen seen xalaat ak nu gisee. maman salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi ngi caw. maman dañu lay laajte rek est-ce que euh, social bi nga xamante ni nee gouvernement bi nee nañ mu ngi koy def est-ce yëg nga ci sa bopp. Ah, waaw yëg naa si sama bopp de wax dëgg yàlla ndax lii ma suñu ko am eh, eh, bi Macky Sall faloo ba léegi wax dëgg yàlla mu ngi nuy dimbali dina jox ay financement ñuy liggéey. financement yooyu da ngay liggéey après nga daal di ko delloo. waaw soo liggéeyee dañu la koy yombalal. parce que nañ la jox nañ ni 300000 waye nak dañ ñu yombalal ci pay gi su wer dewe yaa ngi ciy dugal euh, euh, trente trois mille weer wi dee daal day gëna a ko day gëna a ko ci app bi mom bu joté kenn du len sonal. dédé du kenn du ñu sonal parce que ñun ñu ngi wara ñu ngi waroon a verser le 17 te dem nañu le 18 ba le 19 ñuy soga verser. merci beaucoup maman. waaw kay doom yal na yàlla barkeel liggéey bi